wala guy gi junior at kooma guy gi junior at kooma ñaari xale yaay noonu gannaaw bañ jaxasoo si biir bëre bi léegi léegi ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar guy gi at kooma junior guy gi at kooma général ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar kooma ngemb laa lang kooma général at guy gi bu Mor ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan at bi àtte na leen nee na kooba defaral sa ngemb li na kooba defaral sa ngemb kooba defaral sa ngemb li defar ngemb jeex jàmm di tuusee ci foofu noonu la jeex jàmm di tuusee tuuta mu loolu mënul nekk ak am kaay combat bi mi ngi daw arbitre bi la waat na combat général Gouye Gui Junior booba général ak guy gi senior ñu ngi si ndeysaan booba général guy gi senior ñu ngi si ñaari xale yaa ngi léetoo kooba déclenché na xeex guy gi def na góor daat kooba jàpp na kooba rëpp na eh guy gi tax na ko plaqué ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew guy gi senior daan na kooba guy gi senior daan na kooba guy gi senior daan na kooba général buy gis ñoo tànn